loolu la waroon njëkk a commencé mooy mm. euh, kii di euh, Double Less ñu koy jaale bu baax a baax moo xam Sénégalais yi moo xam képp koo xam ne yaa ngi nekk si affaire da lamb mm. ñu koy jaale bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla barke Seydina Muhammad sallallahu comme ni ko Ouzin waxee Ouzin moom xam naa ne yaa ngi si gën a kii suñu per muy dubalees dafa mel ni euh, fekk na xaytam ba kii di Mbaye Gueye ba tax na dama koy jaal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ndax démb euh, yendoon nañ tiis boo xamante ni ni métti na lool gannaaw bi papa Mbaye Guèye décédé euh, papa Double Less fan yi euh, feebaroon na feebar bi xaw na yàgg trop waaye dafa mel ni yàlla dafa def li gën ndax démb ci ngoon lañu am information ki nga xamante ni mooy papa Double wàññeeku na ba tax na dama naan branche bu mag boo xamante ni wàññeeku na ci làmb ndax euh, kii di Double mooy papa yi ki nga xamante ni mooy Sa Thiès mm-hmm. mooy papa yi ki nga xamante ni mooy Balla Gaye ba tax na ne làmb dafa mel ni ñàkkati na kenn koo xamante ni dootuñu ko amati ndax euh, bokk na ci ñi nga xamante ni ay monument lañu woon mm-hmm. ndax bu tey maa ngi ci bi tiitre na ñi mu jot a bëreel ak ñenn ñi nga xamante ni jot na leen a daan mm-hmm. ba tax na nag dañ koy jaale monde làmb yëpp jël jaal bi di ko teg xamante mooy suñu papa Bira Sène ci suñu loxo ki mooy papa Alioune Sarr mu tasaare ko fépp ba tax na nag Boubacar mu ngi leen koy jaal di ko jaal moonu làmb tey moom làmb ñàkk na ñàkk na ñàkk nañ ko mag koo xamante ni dootuñu ko amati seen. mu ñàkk koo xam ne ko am solo la nekkoon si làmb parce que. pionnier euh, ñu koy jaare encore une fois Sénégal yëpp di ko jaare tamit Balla Gaye Sa Thiès ak képp koo xam ne bokkoon na si yëpp comme ni ko waxee une fois mbenn tamit mu doon loo xam ne tiis la boo xam ne dal na démb si kaw Sénégalais yi. waa tiis mag perte bu mag ci Sénégalais yi. ba mhm. tax ñu ngi koy jaale Sénégalais yëpp rawatina ki nga xamante ni moo di Balla Gaye ak Sa Thiès ak képp ñëpp ñoo xamante ni bokk ngeen si axlu làmb rek ñu ngi leen koy jaale baax a baax comme ni ko Ouzin waxee rek monument la référence la aussi si làmb ci ñu ngi lay koy jaale bu baax référence la monument boo gisee représenté na Sénégal yu bëri bëri euh, génn jënd drapeau Sénégal yëkkati ko ba si kaw ba ñi nga xam ne ñoo nekk si sous région bi wala nekk tamit si monde si si monde nga wax ne dem ba xam lii di Sénégal grâce à kii di Double Less. je pense que euh, lutte sénégalaise perte na euh, benn monument. Mhm. benn benn perte na benn monument perte na koo xam ne amoon na importance tout lool si si làmb ji muy sunu papa Double di ko ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee di ko ñaanal tamit euh, mu xippee si àjjana. di wax ne euh, bàyyi na fi héritage bu baax. bàyyi na fi héritage boo xam ne du du fay ilaa din parce que nga dem bàyyi ñaari champion sa ginnaaw loolu. fierté la fu mu tëdd mun na nelaw mun na mun na mun na nelaw si jàmm ak salaam parce que doo amee ca Sa Thiès am Balla Gaye macha allah te tamit euh, à part tamit def na ay bienfaits yu bëri si làmb ji yàgg naa ay diggante yàgg naa ñagas mu dox si tànk jàmm Balla Gaye day xuloo comme ni ma ko déggee tey si rajo bi sànq si RFM Balla day xuloo mu jël téléphone am woo woo ki Balla Gaye xuloo ne ko loo leen jotee ba dox si tànku jàmm këram nga fële waaye ñëpp xam nañu Balla Gaye ci kaw ay xale rek la ko jox. te papa ji bokk na si tamit euh, li nga li nga xam ne def na ko. di ko ñaanal di ko ñaanal euh, di ñaan Balla Gaye am xolu muñ. ak Sa Thiès ñu continuer seen carrière si jàmm ak salaam. ba moom li mu njort rek si ñoom mu mën a antu. en tout cas repose en paix grand-père ma yooyu daf mel ni tamit ñu ngi delluwaat encore kii si kii di Balla Gaye mhm. mhm. kii di Balla fan yëpp ñoo ngi dégg ne dafa feeboon dafa feeboon mais euh, tey génn na suñu làmp nee na moo ngi am tan moo ngi am féex te daa jot ko moo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mais information <laughs> ah man de dégg moom man daal dégg naa ko ci aada dégg naa ci Adamo non suñu ah, làmb tey waaw suñu làmb tey. non Adamo moom moo leeral que ni moom Balla gay woo woo na Balla jot na ko mais Balla gay nee na ko feebarul dara jotu ko. dara jotu ko suñu làmb tey nag la génn euh, leeral ne carrément maa ngi tane da da daluma boobu du moins daa daluma maa ngi nii maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax pour dalal seen seen fans ñi nga xamante Sénégal yi nga xamante ni ay fansam lañ ak ñi nga xamante ñoo koy bëgg nga xamante ni ñëpp yaakaar na Balla Gaye moo ngi moo ngi moo wala boog moo ngi tëdd lal hôpital comme ni ko moom moo ngi sant yàlla dara ko te ñoo yàgg ci moom yàlla na jàmm yàgg si moom c'est un champion et euh, kii di Balla Gaye mu am mu nar kii di Bombardier si ma trop pas. Euh, mhm. loo xam ne peut yenn. ñi ma bëyal kay dañoo bàyyi sax nag. waaw ak Eumeu mhm. Sène ak kii di Boy Niang donc mu doon loo xam ne combat yaa xam ne tamit euh, ñoo ngi dem si kanamam donc li bu feebaroon bu fekkee dafa feebar ñoo koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér bu wér wér bu fekkee feebaru bu ko feebar euh, di daal. donc mu dee kon loo xam ne lu am solo si wàllu làmb est ce que foofu ngay demee wala am benn détail. moo géet kii di moo géet. Euh, waaw euh, moo géet national moo moo géet parce que fan yi gis nañ ni muy ni muy ni muy ni muy taxawalee combat yi mais dañoo xamagul peut-être yaakaar naa MMA la mm-hmm. ndax gis nañu fan yi passé ki nga xamante ni mooy Malick Niang mm-hmm. demoon na fi nga xamante ni mooy États-Unis Abdou Diouf tamit rejoindre na leen mm-hmm. ba tax na ne moo géet taxawal na combat Abdou Diouf ak Malick Niang mais yaakaar na ne euh, MMA lay nekk MMA lay nekk combat bu neex la nag ndax ñoom ñaar ñëpp mbokk yi ci ci ci defet la ñu jógee te kii di Malick Niang depuis bi ko Ama Baldé daane ba léegi kenn gisagu ko chaque jour mu génn def sorti mbëri di ko laaj waaye enfin jël na komba digganteem moo ko Pape parce que moom sax naa mu naan euh, bu fekkee fin. Euh, jëlul combat dafay bàyyi. dafay bàyyi te ah, ah. kii di Malick Niass waa lamb ko soxla bu baax a baax baax. mu defe naa ni mënut fi mu toll nii bàyyeetul de suma juum. ndax gannaaw jël na avance nag tooyal xaftaan bi dina mën a waajalaat boppam ab juuf tamit ci defee la jógee mook euh, Gris 2 fan yii génn gisoon naa ko mu def sorti ne moom fi mu toll nii reculer xoolaat ay business am la gën a tal ndax làmb dafa metti ndax moo koy xañ lu bari fi mu toll ni moom tamit jëlaat na avance dafa mel ni moom tamit day dellu si waat ci biir làmb am nañ yaakaar nag États-Unis lay amee mhm. waaw am nañ ci yaakaar